salaamaaleykum dalee nag jàmm ci xarala académie mbokk yi seen xarala académie duñu topp suñu tutoriel tey dañoo ñëwaat ci lu am solo mu nekk benn question boo xamante ne laajoon nañu ko fi mooy naka la ñuy def ba am compte paypal voilà tey suñ première vidéo lañ leen wax nag ngay tijjee compte paypal amaana ñu gënee avancé ñu wax leen naka ngay linké euh, maanaam boo amee carte bancaire wala nga am carte prépayée naka nga koy linké ak sa compte paypal voilà. Euh, di sant ñëpp di leen gërëm di leen wax ngeen abonné ci chaîne bi daal koy partagé ok euh, léegi paypal pour nga dem fa da ngay tàppe paypal point com p a y p a l point com voilà gis nga moom day direct automatiquement fi nga dëkk SN mooy Sénégal quoi xam ok léegi boo ñëwee fi ngay dugg sign up for free the the simple safe way to pay and get paid nee na euh, nee na yoon bi gën a yomb yoon bi gën a wóor pour nga fay ak ñu fay la moom mooy PayPal léegi ñu def nii xool ba xam sign up for free mooy s'inscrire gratuitement bon peut-être sama machine tamit lu mu nekk anglais moo tax hmm. léegi de am na ñaari compte soit compte personnel mooy personal account compte business mooy business account bu nekkee da ngay def business ak yeneen pays yeeg yooyu léegi man personal account laay def ok léegi ñu continuer léegi day laaj fii nii. Euh, pays nga après mu laaj la euh, bi par exemple parce que après ci lay moom lay lañ envoyé quoi gis nga your legal name not a nickname gis nga normal bon man pour bi benn la bon pour site la Simon. moom xamu nu sant quoi après da nga changé léegi nga def noon sant ko léegi boo paree nga def email bi bon créé woon naa benn email paypal at mooy hmm, comme fii nii ngay def sa mail quoi léegi man def naa sama mail bu pare léegi mu laaj la mot de passe mot de da ngay def mot de bu bu bu am doole ko mot de passe voilà mot de nag pour conseiller leen ci mot de passe maanaam day am day am am caractère spéciaux wala spécial quoi am chiffre am lettre am majuscule am minuscule moy mot de passe bax voilà fi nak mom mom la def hmm té tamit nga baña utiliser ben mot de passe sa compte yëpp bon loolu conseil de sécurité la nga def next mon am suivant soit souvent dañ lay laaj numéro yeen sa tamit duñ la ko laaj souvent oh oh, oh, welcome Simon let's create an account for you léegi fii dalay laaj euh, carte d'identité affaire yooyu noonu national ID bul neex bul neex nga dugal sa carte d'identité wala passeport wala licence driver's licence mooy passeport non non mooy li ñuy dawalee nu tudd sax permis de conduire ok driver license léegi damay def benn numéro mooy euh, numéro après nga def adresse nga def sa adresse fi nga dëkk bon fi mu toll nii maa ngi wax ak yéen maa c' est bon line 2 bul neex nga bañ ko def léegi city town or village léegi fii nii euh, Pikine la ville de Pikine la state or province ñun amuñu loolu quoi bon je vais Pikine rek les deux postal laaj je fais 17000 date of birth mu laaj la ban date nga juddu bon je vais faire benn date aléatoire mobile type. stay logged in to fast checkout léegi day laaj tamit numéro de téléphone ba xam numéro téléphone à domicile la wala téléphone mobile la après nga def agree and create account parce que numéro boo dugalul dem quoi foog nga dugal numéro bi aussi oh PayPal vous êtes compliqué de bon j'ai bien un numéro expresso je pense que nii la de xam nga dugal sama numéro expresso bi xool léegi léegi boo dugalee information yëpp. the, the you ban pass ban pass you are in what's next send money and shop with is with your new account muni um instant bi am nga compte yaa ngi paypal mën nga jënd mën nga jaay mën nga envoyé bu neex nga ni send send money bu dee da ngay envoyé shop with paypal jënd avec paypal léegi not served add card to use later léegi mun la ajouter sa carte pour di fi ngay dugal carte numéro bi date d'expiration mooy date d'expiration bi nekk carte bi CSE mooy code bi nekk si ginnaaw carte bi trois ki lay nekk trois lettres voilà léegi bu neexee nga link sa card maintenant wala nga bàyyi ko après naa la wan ñaari façon yëpp bon man dugaluma carte léegi link carte lay def léegi dama la bëgg wan interface léegi your account ready to use shop send money go léegi da dugg fii nii mooy aller à votre compte go to your account ok c'est bon léegi fii nii a chaque fois da lay defal résumé bi quoi. léegi yow bu la neexee nga confirmer sa sa numéro de téléphone wala sa email léegi bu la neexee sa email fooy confirmer ma xool wax xam envoyé nañu mail normalement war nañ ma envoyé mail de xaar ma réfléchir son base de données voilà mi ngi nii please confirm your email adresse léegi da ngay xool sa boîte mail son boîte mail moo nekk nii voilà confirm mail bi nii lay mel confirm my email adresse bu neex nga nga activer photo yi ah xam activer photo yi pour photo yi mu ñëw voilà gis nga moo nekk nii les nga confirme ma email adresse me confirmer ko ah la la la la la la Samba ok les confirmer ko là mot de passe bon mot de passe mais amni nak Je biir pas taper. xam ko ok bu taper mot de passe public not now ok léegi dalay laaj pour nga confirmer sa numéro téléphone nga ne ko confirmer ma dara go to my account ok léegi fii nii boo fi ñëwee bu dee da nga bëgg a lier bi sa benn carte fii ngay dugal tak boo duggee nii voilà mu mu laaj ndax carte crédit nga bëgg linké wala euh, banque Amérique fii moom soxla woo parce que yow yaa ngi Sénégal ndeysaan Afrique fi ngay cliquer si kaw nga dugal carte bi sécurité your carte type nga dugal date d'expiration bi nangam nangam ba mu jeex voilà li ma waroon compte Paypal bu nekkee am na dara lu leen si leer wala lu leen bëgg ma ñëwaat si ngeen defee si commentaire yi merci ba beneen yoon ci beneen tutoriel.